jot nii vidéo nag foo leen toll si biir mën a jot moo xam ne a xam nga xam yi xam nga ne mi ngi nii sunu ñaari portable lakk ci mi ngi nii ñaari portable yàlla xam na loolu. man li ma metti woon yëpp daf ma neex ndax nee ne Fatoumata Tall mënoon na maa yëpp bañ maa faale bañ maa lijjanti. waaye daf maa dégg xool ma si net bi jël euh, yëpp ne xaaral ma jàppale sama morom bi xam naa ne day xoslu mu jàppale ma te yàlla tax ma di ko sant nag di ko gërëm ko ñaanal yàlla liggéey bi muy liggéey yal na si yàlla def barke yen yàlla yen yal na oyof yal na oyof yal na egg mi yoon yal na eggali lépp lu mu mébét ci xolam bi ko yàlla defal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin tey jii laa dem jëndi bagage ne bu ma jaayee tey jaay suba bu ma ñibbee fay location parce que Seydina Mouhamed nii laa ci toll nii laa ci toll waaye bàyyi naa leen ak yàlla bàyyi naa leen ak yàlla man Sonko yoruma Macky Sall yoruma maa yor sama bopp ngeen si biir si bitim réew a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir a xam li